la ñëw ci armée yi tuuti parce que fii la ko benn ministre wax te Alioune day def trafiquant d'armes. Cheikh Omar Anne. waaw neen dañ la jàppoon ci trafic d'armes à l'époque ñoom ils étaient au SAES e ñoom ñoo la ñoom ñoo la ñoom xamul sax lu xew il a eu une e perquisition. SAES e on a trouvé les armes là-bas. SAES sax yëgul affaire bi. SAES yoonam néew mu newul ci affaire bi yoonam mu ci nekk armes yi xam nga ñun ku ñu ko jox le chef d'état-major général des armées. Aliou du Sénégal waaw du Sénégal. Mm-hmm. armée yi dañu dindi li nga xam ne da koy lépp loo xam ne da koy kii parce ay ay ay ay bois rek la bu ñu ko daan jël di ko taal loolu la ñuy wax les flammes de la paix temps yi nga xam ne ñun ñu ngi liggéey ci Casamance pour jàmm dellu si bu ñu ko daan taal dañu ko daan yóbbu place bi nga xam ne foofu lañ ko doon def euh, place de la paix là de Jean Paul II gouverneur day taxaw waa MFDC taxaw ñoom Yamakhoune Euh, yaakaar naa ne sax ñoom Amsatou Sow Sidibé mos dañu dem assister ci armée ci boppam moo ñu ko doon jafal pour ñu taal ko pour wane ni armée yi dañ ko war a taal xam nga loolu pour wut jàmm la <laughs> ça n'a rien à voir avec le trafic daal armée yi xam nga fu ñu ko doon denc ci suñu biir toilette xam nga toilette xanaa ba looy looy nëbb doo ko denc toilette ku ñëw dugg fa waaye bañ ko gisee tamit euh, dara la àndiwul biñ ko bi ñu ko gisee def di bruit parce que xam nga maître Babacar Niang bi mu gaañoo la ñu ñëwoon di euh, xool kër yi fa nekk ci la ñu xoolee rado parce que ñoo taq comme Wade dafa waroon ñëw jaale si ñoo taq ñoo taqoon ak rado ñoo taq ah, mhm. bi mu gaañoo Wade di ñëw di ko jaale si alkaati yi di visité ci lañ ko gis foofu waaye ñu ko gis ak ki nga ki doon def enquête bi moom dafa jékki boppam sax téye ko ni mais waaye lii du ay arme ma wax ko fi ñu ko doon taal yépp boo jëlee suñu document à l'époque yooyu rajo di nga ko gis ñun xam nga fu lu ñu dugal ci traité de paix bu Casamance. mais mais mais pourquoi mbir mi suscité enquête alors que nee nga c'est le chef d'état-major général des moom moo la ko jox. Ah, ah, lui il aurait pu par un simple coup de fil vous disculper. et ah, arrêter la dañu dem indi lettre leen ko lettre bi ñu bind te ñu jox ñu réponse lañu leen tegal bañ ko tegal. lettre bi ñu ko bind mu tontuñu wax ñu ni ñu koy joxe ak nit ñu ko andile armes yi dafa traversé sax Gambie ñu ñu wane leen ko wane leen document yi pour yóbbu ko Ziguinchor pour ñu taal kooku lu leer <laughs> kooku ñëpp mën nañ ko vérifier. donc vous n'avez jamais été pris dans un trafic d'armes donc loolu amul. man lu may trafiquer man du ma jënd arme pour sama doom yi sax sama kër arme du fa dugg fowukaayu arme sax du ma ko foy symboliquement ça c'est ça partie des valeurs qui bu fekkee ne xamuñu. nañu laajte. mais da ngay porter plainte. du ma ko porter plainte jaru ko. Hmm. non jaru ko jaralu ma ko soo ko porter plainte du jëriñ dara fen la dul dem kooku xam nga ko sax man xam naa ko ñëw daal di. ah boo ko porter plainte du jëriñ dara fen la dul dem loo jàpp. fii mën nga porter plainte Cheikh Oumar Anne. mais vous êtes un citoyen si vous estimez euh, diffamé vous avez le droit d'ester en justice si am na citoyen ak citoyen <laughs> man biñ ma euh, agressé maa ngi porté plainte ba tey demul fenn biñ ma agressé fii may bëgg a dee porté naa plainte waaw ak sama ay kii ak yëpp plainte baa nga fa ba tey demul fenn fenn la demul